ñu dikkaat ci beneen yëgle ànd ci ak ki nga xamante ni mooy Serigne Abdou Salam Mbacke. macha allah dëkk fii nga xamante ni mooy Cambérène 1 ak poste de santé bi numéro téléphone am di 78 433 78 nee lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu ubbeeku ngir wërsëg ci doomu aadama bi wala wàllu kaaraange ngir aar sa bopp aar sa ñooñ aar sa njaboot wala itam ci wàllu bayre jokkool ak ki nga xamante mooy sëñ Abdou Salam am na ci yu am solo yoo xamante ni ci wàllu càngat ci wàllu ndomba yoo xamante ni loolu rek mooy liggéeyam waaye nee naa la yow mi nga xamante ni da yor njaboot gu tëradi nga bëgg leen a nopp teg leen ci place wala yi tamit nga yor sa kër bëgg a boole njaboot gi ñu doon benn jokkool ak sëñ Abdou Salam mi ngi ceeg sa kër yu doy waar yoo xamante ni lépp ci turu yàlla la aju waaye yow mi nga xamante ni yaa ngi xëccoo wala nga bëgg jiitu maanaam wàllu falaate jokkool ak sëñ Abdou Salaam Mbacke ndax yor na ci yu doy waar. def def nekk ci sa yaram wala tawatu yaram jokkool ak moom sama borom mën na la cee defal saafara. yitte ju mu mën a doon daal. boo jokkoo ak Cheikh Abdou Salam Mbacke incha allah rabbi sama borom mën na la defal tawféex waaye nee naa la jaaro yi bu leen ko fàtte ndax jaaroo kaaraange jaaro ubbeeku waaye jaaro bayre moom am na ci yoo xamante ni yu mucc ayib la yoo xam ne benn bu ci ne bu koy liggéey da koy liggéey ak sa biddéew ak sa turu waajur wu jigéen ak sa tur macha allah rabbi nga xam ne ndam rek a ci dal di am. adresse am nag fii ci Ndakaaru. Cambérène 1 jàkkaarloog poste de santé bi mooy adresse am benn bi ci des mooy tubaa Mbacke Bawal waaye numéro téléphone yi moom benn képp la muy 78 433 78 78 boo ci jokkoog moom incha allahu rabbi tiis ko lay sa soxla la ci des nga wàcce koog moom ak sa borom sa yàlla mën na koo saafara ci kattanam jërë ngeen jëf salaam.